نعوذ بذات الله لذاته من ذات الشيطان الرجيم وبصفات الله لصفاته من صفات الشيطان الرجيم وبأفعال الله لأفعاله من أفعال الشيطان الرجيم الحمد لحق المتنزه عن الحق الذي أرسل رسول الحق بالحق xaqa alxaqaa'iqa xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim bokki jullit yi topp suñu jataay ci seen émission shukran ci dakar midi point net ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu ñëpp fu waay mën a nekk bokk ci biir réew mi ak yi ci biti réew di ñaan yàlla koor gi nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla nañu ko songe bismillahi arrahmani arrahim ñu ñaan yàlla yit moo may nu nu àggale ko alhamdulillahi rabbil alamin euh, li mu ñu ci dig lépp ci xéewal yàlla bu mu nu ump di ñaanal it nag suñu jàmbaar ji nga xam ne moo taxawal lii dañu naan ko rek ayyadahu llahu wa nasarahu muy cheikh alxasan seen na yàlla may ko wér te jàppale ko guddal fanam mook jabootam yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii dafa nekk benn pàcc boo xam ne day yaatal diine te lépp loo xam ne day yaatal diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu fàgguloo woon ndax naamus bu ñu seetee ca xajjatul wadaa keroog bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dénk saxaaba yi daf ñu fal yuballighi shaahidil ghaaiba minkum yéen ñu teewe na ngeen fexe ba jot li ñu teewul kon mu mel ni képp koo xam ne yaa ngi yëngut ci diine lislaam rek di jottali message yu yonantu boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk nga ci ñi seede woon daawa boobu mbokk yi nag ñu ñëw ak yéen ci suñu tomb tey euh, ci seen émission Shukran di wax ak yéen njëriñ li nga xam ne moom la yàlla dëxañ ci weeru koor jagleel ko xeetu sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam Euh, weeru koor nag dañuy wax ne fanweeri fan la ku ko war a sóobu ku ne nag danga ko war a préparer préparation boo xam ne dafa am yu mu laaj ndax war nga ko préparer spirituellement xam ne am na lu la yàlla sant ci sa bopp nga war ko doxal ci sa diggante ak moom bu jëf ji sellul du ko nangu ndax yàlla kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yàlla ku teey la ku laab la du nangu lu dul lu laab moo tax mu wax ñu ca alquran ci suratul bayina ni ñu wa maa umiru illa li yacbudu llaha muxlisiina lahu diin man yàlla li ma leen di digal ngir ngeen jaamoo ma ko su sellul duma ko nangu te soxlawuma ko kon koor ñu war ko taxawal ak sell war ko taxawal ak ngëm yàlla gu mat sëkk nag ndax yeneen yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne nan qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon nañu képp kenn ci yéen ku taxawe weeru koor sarti ngëm yàlla yañu ko ca sant mu def ca kenn kàttanam ba mu mat taxawe ca rafetal ya ba mu mat yàlla dana ko jéggal bàkkaar yi nga xam ne moom la jiitaloon bi muy dugg ci koor kon lim ciy jànge mooy koor bu ñëwee ba demit war ngaa mën a fexe ba bàkkaar yi mu la raxasaloon nga war a mën a def attention nag bu dootoo ci duggaat bokk na ci yi ñuy waajalee koor wala yin ciy sooboo ak tawbatu nasuuxa ci la bokk muy tuubal yàlla tuub gu sell ndax yàlla waxoon na ni yaa ayyuha alladina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxan asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'aatikum wa yudxilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar ila axiri al ayat yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala ci mbaaxam waxoon na ni yéen ñi gëm yàlla dañuy wax ni nag yaa ayyuha alladina amanu su ko yàlla waxe ci alquran dafa seppi ci li mu bind ñi ko gënal ndax yaa ayyuha alladina amanu alladina amanu ñooy crème de la umma su fekkente ne umma bi am na xeet wun ci tànn alladina amanu lay doon ndax ñun ñoo tax yàlla wàcc alquran ndax ñun ñoo tax yàlla yebal yonent bi kon yàlla def ne nañu tuub tuub gu sell suñu tuubee ba noppi tuub gi sell moom yàlla dana nu nangul ne jéggal nañu suñuy bàkkaar fayee ñu aljanna yàlla ñu ko yàlla defal euh, mu bokkaat ci yiñ koy préparé yàlla indexé waatoon jullit nii ne tuubu ila llahi jamian la almuminuuna laallakum tuflixuun yàlla waxoon nañu ne nañu tuub ñun ñëpp en masse tuub en masse nag bu ko yàlla waxee setteewul kilifa setteewul njaboot dafa ne rekk ne ñëpp tuub daw wut si ma su ngeen ko defee en masse day man yàlla danaa leen jéggal seeni bàkkaar te it nag yàlla su ne laal la rekk luy mën a nekk la laal la su ko yàlla waxee lu mu nar a jéggale la wala lu mu nar a baxale kon yàlla nañu yàlla boole ca ñu muy jéggal euh, bokk nag ci yi ñuy préparé corps mooy physiquement làmb sa wér gi yaram saytu ko ba xam ne yow mi war nga ca mën a dugg bi salaamati sadri maanaam def ko ak dënn bu ubbeeku parce que li ngay defal yàlla waruloo ko ca wan ne li nga koy defal da ko ci tayal déedéet yàlla soxlawul loolu yàlla li mu soxla mooy bi mu lay jox koor gi dafa bëgg nga nangu ko volontairement ndax kat bokk na ci pacte bi nga xam ne yàlla doon na ko signé ak ñi mu bind mooy def ni inna aradna al amanati ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kaana zaluman jahula yàlla nee na bu mu bindee xeet yi bind mbindaa foon yëpp yëkkati confiance am di ko dénkaani dafa mel ni kum jub ci ñun bind rek dañ ko daw waaye doomu aadama moom xaarul yàlla sax testé ko dafa tëb rek ne ko jox ma li ngay dénkaane ma téye ko te fekk na doomu aadama moom mi ngi yanu li yàlla yi ci ak tooñ ak réer kon mbokk yi koor daal liñ ci mën a jànge mooy dafa ñëw pour laabal suñu jikko yu bon koor dafa ñëw pour laabal suñu bakkan yi nga xam ne dafa tilim ci sobe koor dafa ñëw pour defaraat suñu wér gu yaram mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li mu ñu jàngal mooy daf ni suumu tasixu woor leen ndax ngeen wér te mbokk yi koor bari na lu mën a def ci doomu aadama ndax ku woor ba koor gi jeex nga yëg ni ci biir koor gi kat sa jikko yu bon soppeeku wu ci war ngaa seetaat sa bopp xam ne li la yàlla joxoon defuloo ko ba mu mat xam naa dinañu ci ñëw sax ci suñu beneen jataay ni ko yàlla joxe yonent bi mooy daf ne ko woon يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون kon emballage bi yàlla jox jullit ñi bi ñu koy nangu bi ñu teppee emballage bi étiquette bi ñu fekk ci kawam mooy laallakum tattaquuna te mbokk yi koor lu sacré la koor lu am solo la koor lu am doole la dañuy wax ni boo ci duggee ba génn te jëlewoo ci ragal yàlla war ngaa mën a seetaat sa bopp ci li nga doon defal yàlla ndax dëgg la wala du dëgg ndax nag yenent bi wax na ne man lam yamnau salaatuhu an ilfaxsaai fa laysa bi musallin yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne sa julli yi ngay julli laa def lu bon laa def ak kàccoor bokkuloo ci ñuy julli da sëgg ak a siggi kon mbokk yi war nañoo mën a lu ba bu koor jeexe ñu yëg ni dese nañ ci jikko ju rafet joo xam ne war nañ ko mën a présenté wu ndax bu ñu seetloo koor mooy ñeenteelu farata ci lislaam bi ko juróomeel mooy aj màkka kon bu ñu génn ci koor li ñuy def daal di préparer yi wara a wuti sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa te foofa yàlla bi mu ñuy takkaloo bagage yi def nañu woon wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa na ngeen yóbbalu su ngeen di ñëw ci màkk gii na ngeen yóbbalu su ngeen di aj màkk na ngeen yóbbalu su ngeen di tawaaf na ngeen yóbbalu su ngeen di seeti yonent bi na ngeen yóbbalu mu mel ni dañ ko laaj ndax yére yu bari la ndax xaalis bu bari la waaye yàlla soxla wu ci loolu lépp li mu ci soxla mooy li ñuy yóbbu ci bagage bi lu mu ci fret lu dul ragal yàlla yàlla du xool loola kon aj màkk mbokk yi ragal yàlla moom moo koy tingoom ñoo xam loolu nag bu baax ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa bokk ci yim jàngaloon jullit ñi mooy daf ne inna allaha laa yanzuru illa suwarikum wala ila alwaanikum walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum yonent sallallahu alayhi wa sallam daf ne ñu woon yàlla soxlawul li ngeen koy jëfal lu jëf ji bari bari yàlla soxlawul ni ngeen mel ak nu ngeen mën a taaroo yàlla li mu soxla ci yéen mooy lim leen sant li ngeen ko ci defal ndax jëmmam ji moo tax wala caaxaan moo tax kon mbokk yi weeru koor a ñu noonu loolu moo doon seen première émission ci seen euh, loolu mooy seen première émission ci émission Shukran fii ci Dakar midi point net ñu di leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje ci beneen jataay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu